alhamdulilahi rabbil alamin mbokk jullit yi noo ngi màggal allah taala wa tabaarak di ko gërëm di ko bàkk di ñaan borom bi jéggal ñu sunuy njuumte waaye jéggal ñu sunuy rëcc-rëcc noo ngi julli tey sëlmal ci ar rasulu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ko ñaanal jàmm moom ak i sahaabaam ak taabiina lahu bi ihsaanin ila yawmi ddin mbokk yi sunu xutba tey mi ngi tënku ci almakasibul xabiisa almakasibul xabiisa mooy wutiinu alal bu xaram maanaam wutiinu alal nga xamante ni fàgguwaay yi nga xam ni ñu bëri ci nit ñi tey ñu ngi ciy liggéey jàpp ne liggéey bu dagan la loolu tey ci la ñuy wëndeelu insha allah mbokk jullit dafa jaaduti jullit bu nekk ci ñun yëg ni dafa am borom boo xam ni da koy sant di ko tere digal ko waaye utal ko ay jubluwaay kenn ku nekk ci ñun war na saytu am amam moo ndax amee na ko ci amin bu dagan walla amee na ko ci amin bu xaram ndax jamono lu muy gën di dox mbir yi di gën a lënt kon ku nekk ci ñun te waxtu wu nekk dee di nekk sa kanam walla mu ne sa ginnaaw di la xaar war ngay sóor li ngay lekk lan la li ngay jox sa njaboot lan la ndax li ngay fàggu dagan na bu fekkee waaw la nga continuer ndax li ngay fàggu xaraam na bu fekkee déet la nga daytalu su fekkee ku gëm borom bi nga ndax ki gëm borom bi dafa war a góorgóorlu ba lu muy ut mu dagan mbokk yi bokk na ci alaamaatu diful iman muy màndarga yi nga xamante ni day wane ngëm yàlla gu feebar ak ngëm yàlla goo xamante ni dafa néew doole ak ñàkk yaakaar ci yàlla xubbu dunya te mooy bëgg àdduna nit ñi tey dañoo jiital àdduna ci àllaaxira amin xoolatuñ ci nu mu neexee borom bi ni nu ko bëggee rek lañu koy xoolee tey dañoo dem ba gis ni bunt yu bari yi nit ñi di utee alal ay bunt yu lënt la moo tax waxtu wu nekk ay laaj ji la dikkal man damay liggéey ci nangam ndax dagan na man dama ne ci nangam ndax dagan na mënaguma koo bàyyi ndax amaguma dara mbokk yi yooyu question li muy ñëw dafay bari lool jamono nag bu yàqoo mooy nit ñi bu ñu demee bay topp noonu yàlla bi nga xamante ni ñoom lu ñu dugg rek tey ñun dañ ciy dugg ñun dootuñu xool li yàlla daganal dootuñu xool li yàlla xaraamal waaye lu tubaab bi sàkku ak lu mu indi rek pour ñun war nañ koo def dem na ba nit ñi tey dañoo mujj nekk comme ay animaux xoolatuñu ndax nit lañ àndatuñu ak seen xel amatuñu kersa amatuñu diine dem ba tàbbi ci li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nga xamante ni noon na bisa ngi ñëw da ngeen topp yoonu ña leen jiitu woon tànk ak tànk mbagg ak mbagg chebre ak chebre ñooñu di noonu yàlla yi fu ñu teg seen tànk da ngeen fa teg seen tànk fu ñu teg seen loxo da ngeen fa teg seen loxo lu ñu wax moo leen di gënal lu yàlla wax yonent bi ne dana dem ba ñoom noonu yàlla yooyu bu ñu duggoon ci paxu mbëtt da ngeen fa dugg ndax da ngeen di complexe dootu leen xool dara saxaaba yi ne yonent bi ñooñu day xanaa yahud ak nasaara la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen bu dul yahud ak nasaara ñan la xadis boobu muttafaqun alayh ñenn ñi dugg nañ ci lu lënt te xam ngeen ni képp ku dugg ci lu lënt daanaka dugg nga ci lu xaraam mu mel ni rek sàmm ba nga xamante ne day sàmm ci wetu toolu jàmbur booy sàmm ci wetu toolu jàmbur munoo assuré ni bëy yi duñ ci dugg wala xar yi duñ ci dugg te mbokk yi buur bu nekk am na ñag ñagu yàlla mooy moytu yi mu xaraamal tere yàlla mooy moytu yi mu xaraamal mbokk yi bu fekkee ni bërëb yu bari yi ñuy utee alal dafa xaraam te wuute ndax nit ñi tey waruñoo dellu ci li yàlla waxoon xaar àllaaxira seytaane yi nit ñi ak seytaane yi jinne yi tey bàyyiwuñu kenn mu dal moom nit ñi nan la ñuy xool nu ma def ba am baax na naa am salaire naa am kër naa am jabar naa am oto naa dund dund bu neex waaye yowmal qiyaam léegi xel yi yu bari dematu ca bokk na ci bunt yooyu ñu bëgg a ubbi tey dinañ ci tànn fukki tomb ak benn donte du fala yem bi ci jiitu ci fàgguwaay yu araam yi mooy ar riba nit ñu bari tey riba faaleetuñ ko ci ñiy jaay ak ñiy jënd ak ñiy liggéey ak banque yi ñu bari ci ñoom xam nañ ni riba dagalul waaye bàyyi ko léegi yombatul leen intérêt bancaire yi nga xamante ni xam nañ ni dafa xaraam waaye ñu bari ci nit ñi tey ñu ngi koy jëfandikoo tey ñu bari ci nit ñi dañuy jëfandikoo banque di leb banque di jël ci banque di liggéey ak banque te banque yooyu ñuy liggéeyal bu fekkee dafay teg intérêt intérêt yooyu dafay nekk yu daal di xaraam loolu képp ku ci amee alal yëgal ni alal boobu nga am day soppi ku nekk safara lakk la ndax borom bi taala wa tabaarak dafa tere riba yamxaqu llahu riba wa yurbi sadaqat kon commerçant bi entrepreneur bi liggéeykat bi moytul di jëfandikoo alalu banque ndax sàggu fàgguwaay bu xaraam la tey ñaata ci jullit ñi ñooy liggéey ci banque yi ñaata ci comptable yi ñaata ci ñekk fa nekk di jël ñii di joxe ci ay góor ak ay jigéen nga xam ni dafa mel ni waxuñ leen ni liggéey bi dafa haram waaye la ñu lay tontu mooy dama jàng ba pare jàng mënuma ñàkk a liggéey loolu benn jigéen wax na ma ko nee na ma sama papa def na ci man alal bu bari ma jàng ba pare ñu bëgg ma wax ni liggéeyu banque dafa haram loolu mënuma ko bàyyi xam nga lu mel noonu bu fa jullit àggee mooy duuful yaqin moo ko dal ak duful imaan léegi mi ngi xool diplôme bi mu am ak li ko pàppam jàngloo même bu la sa papa jàngloo woon nga jàng di war a nekk kuy liggéey ci banque te nga xam ni banque borom bi dafa xaraamal façon liggéey ya fa nekk wala yi ci ëpp yow jullit bi war ngaa moytu lu mel noonu ñaareel bi mbokk yi bokk na ci liggéey yi xaraam te mu ngi lënt ñu bari nit ñi di ci utee alal muy jaay sàngara tey jullit ñu bari dañ koy def jullit ñi démb dañoo jàppoon ne jaay sàngara mooy ubbi baar fekk yemul foofu am na ñoo xam ne jaay drogue dañ koy def ñaata ci ay xale yu góor ñaata ci ñoo xam ne ay businessman lañ pour ñoom sàngara xaraam na mais drogue araamul nga xam ne dañ koy joxante seen biir di ko jaayante ci seen biir di jaay mbir moo xamante ne xam nañu lu illégal la àdduna sax nanguwu ko waxantuma la ak alaaxira boobu jullit bu nekk war na koo sóor mbokk sa bakkan yàlla moo ko yor waxtu bu ko neexee da koy jël kon fexeel ba li ngay utee sa alal na nekk utin bu dagan ñetteel bi mbokk yi ci alal bi araam te bëri lool muy samanul kalb jaay xaj te tey ak a bari tey jaay xaj dafa tasaaroo ñi ñu ko indil nag mooy ñu jóge Europe léegi da ngay gis koo xamante ni day préparer place am rek jël ay xaj di leen yar ay pitbull ay rottweiler ut ay xaj yu seer ay berger allemand parce que prix bi dafa cher léegi doomu jullit ñi ñoo koy jël toppal corniche bi di dox. tey boo ne woon fan mooy jaay xaj ñu ne la fii ay jullit ñoo koy yar ay jullit ñoo koy jaay ay xale yu góor yu nekkoon Europe wala yu nekk fii parce que prix bi dafa am xaalis njëg li dafa cher léegi nga bëgg a jël sa métier def ko jaay xaj di jaay xaj alal bi nga ci am dafa xaraam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da koo tere ci xadiisu abi juhayfa abi juhayfa radiallahu anhu qaal naha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an samanil kalb nee na yonent bi dafa tere njëgu xaj lekk njëgu xaj jaay xaj lekk ko njëg li dafa xaraam kon jaay xaj en aucun cas dafa xaraam jullit ñi mën war na ko moytu na ko moytu ndax loolu nekkul lu dagan ñeenteel bi bokk na ci alal bi araam mooy alal bi jigéen di jël ci jaay boppam moom nga xamante ni moom la ñuy tuddee mahrul baxi jigéen joo xamante ni métieram mooy nekk ci hôtel yi di jaay boppam wala dugg ville ngoon gi fanaan fa di jaay boppam ba xëy ñibbi si këram métier moomu waxuma sax xaraam mais gor daawu ko def yonent bi benn bis noonu la juriñu jigéen ñi nañ ñëw jaayante bokk na ci charte njaayante yi ñu moytu njaaloo hind lu mu waxoon awa taznil xurra ndax gor dana njaaloo tey ñu bëgg a dem ba tey da ngay fekk mu nekk métier mu ñu daganal tey jigéen ji am na droit am ci carnet de santé ne moom day jaay boppam ñu utal ko carnet de santé di ko traité muy dem di fay di faju di jaay boppam mu tudd métier mbokk yi loolu métier bu xaraam la alal bi ci ndaw si am daganul alal bi ci góor gi am daganul que ça soit nag góor gi mën na koo def jigéen ji mën na koo def àggoon na ci ay Brésil ba ay Suède waxatuma la jigéen buy jaay boppam mais góor guy jaay boppam nga xamante ni genre Louis Bodega lay doon jël xale yu góor yi utal leen saalu gym ñuy entraîner di sol ay body ñu utal leen ay journaux jigéen ñu bon ñi ñëw fa di tànn di waxaale pour di njaaloog ñooñu am na ñuy liggéey liggéey yu mel noonu am na góor ñoo xam ne seen àdduna yépp loolu la mbokk yi loolu alal bu ci nit ki am na yëg ni daganul juróomeel bi dafa xaraam lekk alal boobu mooy xulwaanul kaahin hulwaanul kaahin mooy xaalis bi ñu lay jox ci njabar maanaam nga gisaane ñu fay la 500 nga fanaanoo nit ki dafa xaram ñu fay la 1000 francs nga jël pettaaw tas dafa xaram ñu fay la 1000 francs nga bindal nit loo xamante ni xaatim la defal ko ci maaman sàngam te mu tudd njabar loolu dafa xaram borom bi ne wattabau ma tatlu shayaatinu ala mulki suleymaan وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس سحرا كون جبر كفر لا كفر غوغو نك lu ci nit ki fay ko dafa haram moo xam dugg xalwa nga ko tuddee moo xam sëriñu tariyaax nga ko tuddee moo xam sëriñu baatin nga ko tuddee xam ngeen ni baatin amul baatin mooy baatil léeg-léeg nag da ngay fekk ci réew mi ñoo xam ne léegi jàng njabar même jàng njabar dañ ko xaramal koo xam ne day toog ci Facebook bi ne day jàngale ay asraar day jàngale ay njabar loolu jullit bu ragal yàlla war na koo moytu lu yàlla tuddee yéefër loolu jullit war na koo moytu kon xaalis buñ la ci fay moog ñiy tukki di dem ci dëkku naar yi di dóor marto ñoo yem am na fi ñoo xam ne looluy seen métier boo ko waxee nag ñu mer subaak jàmm ñu saagama ba ma doyal waaye loolu du tee danaa ko wax dafa haram te lu bëri ci ñu koy def ci këru diine yi la ñuy bàyyi ko dem ci dëkku naar yi nekk fa di dóor marto di dugg ay xalwa di njabaral ay nit ñu ñàkk ngëm moo xam naar lañ walla étranger jullit alal bu mu ci am am ci ay milliards am ci lu la neex xaraam na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadiisu ibni masudin al ansaari radiyallahu anhu mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam naha an samani al kalb wa mahril baghi wa hulwaanil kaahin muy xadis bu buxaari solo ñett yii ma la wax tënk na ko ci benn xadis muy xadis bi nee na yonent bi tere na njëgu xaj xaj kenn du ko jaay jullit du jaay xaj na nekk xaj bu seer ñetti rek la ñu may nit ci xaj xaj pour sàmm dagan na jullit bi yore ko maanaam da nga yore ay nag yore ay bëy xaj bi di sàmm ànd ak xaj ki nag yi boobu maye nañ ko maye la tudd ñaareel bi pour garder kër nga xamante ni am na alal bu fa nekk nga bëgg mu gànd ko gis nga xaj bu ko jullit yoree ci këram te du pour ñett yi day wàññi sa tuyaaba yonent bi nee na képp ku yar xaj ci sa kër te du yii ma la wax nee na bis bu nekk say tuyaaba lu toll xiiraat da ciy wàññi ko yonent bi lan mooy xiiraat mën a lu toll ni jabalu uhud maanaam xaj ci biir kër gi rek di mbef mbef yi di mbaw kenn amul jàmm ne ci koñ bi ku romb mu dàq la du xaj bu am njëriñ du dara yar ko pour yar rek bàyyi ko ci kër gi pour bàyyi ci kër gi rek saa boo xëyee di nga ñàkk tuyaaba lu toll ak jabalu uhud mbokk yi jabalu uhud wallahi bu ñu wax ni mu toll boo demoon ba màkk ba xool jabalu uhud ni mu toll ku loolu di génn ci say tuyaaba bis bu nekk war ngaa xam ne loolu problème la yonent bi benn bi toog na xaar jibril ay fan jibril ñëwul bi mu ñëwaatee dafa bokk ci li ko jibril wax ne ko jullit du yar xaj ci këram malaaka yi du ñu dugg kër goo xamante ne yar nañ fa xaj kon loolu na ko jullit ñi moytu xale yu góor yi maa ngi leen di lancer message tubaab yi waxtu wu nekk ñu créer ay mbir waaye yow jullit nga da nga am référence sa référence mooy alquran ak sunna sa référence mooy borom bi taala wa tabaarak moo la bind fu kenn fekkewul moo la moom te waxtu bu la bëggee jël da lay jël ñàkk liggéey dama ni mar naan bu mu la tax a naan petit gis nga yar ay xaj ji ko jaay lu mu bëri bëri bëri bëri xaalis nga ut liggéey bu dagan soo xamul woon ni araam na am na ku ma ko wax mu ne ma wallaay man xaw ma ko woon musuma koo def mais bokkoon na sama intention ndax xam naa ni pit bul yéeg yooyu dafa cher te bëggoon naa cee dugg ma ne ko jullit du jaay xaj xaj kenn du lekk njëgam dafa xaraam kon bokk na ci mbokk yi li nga xamante ni njabarkat yi dañ koy def yow jullit bul dem ci gisaanekat bul dem ci seetkat bul dem ci ñaankat xam nga dafa am yu ñuy tuddee ay ñaankat ak yooyu yooyu yëpp ay dóor marto la ay nax la ñaankat amul ñépp am droit ñaan kan moo toog rek ne man dama jël ñaan def ko métier kooku triandage la rek ndax nit ñi la toog fële beru sa kii naan damay ñaanalaat yàlla la ñuy ñaan borom bi lu mu ñu wax qul ud'uuni astajib lakum ñaan leen ma ma may leen su la neexee nag am nga droit nga xool nit ki mu doy la nga am ci moom yaakaar ne ko ñaanal ma mu mun laa ñaanal waaye ñaanal ma amul droit ne la ci fay ma fay ma ma ñaanal la te ki ngay ñaan xamoo ndax dana nangu charte yi tax ñuy nangu ñaan xamoo ndax matal nga ko kon loolu jullit bu koy def na ko moytu bokk na ci al makasibul muharrama ci fàgguwaay yi nga xamante ni islaam da ko araamal te jullit bi war koo moytu moom mooy ar richwa ger ger mbokk yi nañ ko moytu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci hadisu abdullah ibnu amr radiallahu anhu wa ardah ne laana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam arrashi walmurtashi fi lxukm axrajahu ahmad wa tirmidi wa saxahahu albani nee na yonent bi rëbb na kuy ger ak ku ñuy ger ci wàllu atte maanaam atte ñu war a atte ñu dem ger kenn ca ñay atte moo xam juge ba la moo xam avocat ba la moo xam ku mu mënti doon te nekk ci biir loolu yonent bi daf ko xaraamal ger nit pour mu tëj nit ger nit pour mu bàyyi ku ñu waroon a tëj ger nit pour nangam ak nangam loolu dañu koy tere benn bunt rek lañ ci maye mooy li nga waroon a jot ñu xañ la ko te joxe di tax nga jot ko su boobaa du tudd ger ki ko lekk moo lekk lu xaram par exemple am na loo xam ne am nga droit ci jot ko sénégalais nga sénégalais yaa ngi koy jot nga ñëw ñu jafeel la ko te li la ko jafeel xam nga ni xaalis la mais xam nga ne ci droit ak ci nationalité war nga koo am su boobaa boo yëkkatee jox ko nit ki mu génneel la ko parce que léeg-léeg ñiy liggéey ci yooyu dañ koy def dañuy tardé sa dossier pour bëgg nga joxe ki tardé sa dossier pour bëgg nga joxe soo ko joxee moom moo lekk lu xaram mais yow lii nga jot am nga droit nga daal di koy jot bokk na ci mbokk yi lekk lu xaram ak métier yu xaram yi mooy di liggéey ci bërëb bu ñuy jaayee sàngara bépp bërëb bu ñuy jaayee sàngara jullit waru ca liggéey du ci usine bi du ci restaurant bi du ci fenn fu ñuy jaaye grande surface la ak petit surface ak lépp ci yem liggéey ci dafa xaraam ci jullit bu gëm yàlla ndax jullit na moytu fu ñuy jaayee sàngara mu ciy liggéey fu ñuy toggee mbaam xuux mu ciy liggéey même kese yooyu dama koy am waxtu bu nekk moo xam nag gardien la buy garder place bi grande surface bi gardien bu koy garder xam ni dañ la jël pour nga garder ko mais grande surface boobu dañ ciy jaay sàngara dafa xaraam yow gardien bi métier boobu ngay def foofu ndax dañu fay jaay lu xaraam amoo droit nga sécuriser ko ndax soo ko sécuriser yaag ñi koy jaay yéen a yem comptable bi ci boppam kii ne ci machine bi di comptabiliser xaalis bay dugg te la muy comptabiliser sàngara ak lépp dana ca dugg dafa xaraam léeg-léeg nga dugg ci grande surface yi gis côté yoo xam ne ñii dañ leen a jox ay machine ñoom ñuy liggéey am benn côté spécial boo xam ne dañu pour ñuy jaay sàngara rek la yooyu façon nax seen bopp la jullit warul liggéey loolu boo jàngee comptabilité loo mënti jàng jullit nga dalal dalal gis nga wërsëg ku dund ba déwén lekk ba déwén jarul yàkkamti dem nga fee ñu ngi lay fay lu cher teg ko fële nga dem liggéey liggéey bu dagan moo xam liggéey ci hôtel bu ñuy jaayee sàngara dafa xaraam wala ñu fay togg mbaam xuux bu fekkee nag yow sa métier togg la hôtel booy liggéeyee ñu lay toggloo mbaam xuux yaa ngi def lu xaram loolu nañ ko bàyyi xel bépp togg bu ñuy togg di ko toggee vin nga xamante ne la ñu koy toggee sàngara xam nga am na ci plat yoo xamante ne sàng sàngara lañ koy toggee en tant que jullit waroo liggéey liggéey boobu kon nag ndax jullit am na droit ubbi hôtel ñu ciy jaay sàngara ndax jullit am na droit boobu ndax jullit am na droit ubbi restaurant ñu fay jaay yàpp mbaam yooyu question la boo xam ni yow mi ne gëm nga yàlla xoolal ko sa bopp mbokk yi abdullah ibni umar radiallahu anhu ne laana allahu alxamra wa shaaribaha wa saaqiha wa baaiaha wa mubtaaha wa aasiraha wa muctasiraha wa xaamilaha walmaxmulata ilayh saxahahu alalbani nee na yonent bi yàlla subhanahu wa taala yàlla moo rëbb xam ngeen ni borom lam la wax innama alxamra wal maysir wal ansaabu wal azlaamu rijisun min amali seytaan yàlla moomu wax loolu dafa rëbb yàlla nee na rëbb na sàngara sàngara tur bu mu munti am nañ ko utal beneen tur te jamono yonent bi noonu dana soppiku ñu changé turu sàngara utal ko ay tur waaw changé tur bi yàlla rëbb na ko moom sàngara ci boppam ñu ne ko ak kan mu ne ak ki koy naan bépp naankatu sàngara yàlla rëbb na la te mbokk yi sànjum yàlla ak rëbbam yàlla xajul ci jaamu yàlla kon jullit ñi nañu moytu naan naan sàngara dafa xaraam jaay ko dafa xaraam mu ne wasaaqiha ña nga xam ni dañuy jël sàngara di ko séddale di liggéey ci hôtel nekk serveuse wala serveur di yóbbu wax naa ko ci benn aéroport bu ma toog benn jigéen mag seen ko man bi ma laajee li ma soxla muy di ma pare ma gis ko mu mu mu jël li mu jël xam naa am ci lu ma jaaxal ma woo ko mu ñëw ma ne ko li nga yóbbu ne lan la mu ne ma nàngam la ma ne ko noo tudd mu wax ma turam man ko lii doy na waar de mu ne ma papa ci lan dimbale ma leeral ma man ko lii nga yóbbu bu fekkee sàngara dafa xaraam nga ci liggéey wala nga di ko yóbbu mu ne waaye nag pexe amut wallahi lii la ma tontu pexe amut sët pare na ci mais dem na dem a dem ba avant ñuy jël vol xam naa affaire bi di ko travailler mu mujj ñëwaat ne ma waa dama bëgg na nga leeral ma ma ne ko yàlla dafa tere jël sàngara di ko servir nit taabul bii sax man ma toog bu ngeen ci tegoon sàngara man fi ma toog daganatul ma toog ci kon wa saaqiha kiy jox nit di liggéey ci restaurant wala ci hôtel di yóbbu wa baaiha ñetteel bi jaay sàngara dafa haram hôtel bi place bi boutique bi grande surface bi la ñuy jaay bu ca sàngara bokkee dafa haram wa mubtaaha ka koy jënd dafa jënd lu haram sàngara kenn waru koo jënd mu ne wa aasiraha usine ba koy nal di ko liggéey di ko defar ca la bokk wa mu'tasiraha ak kuñ koy nalal ne wa xaamilaha ki koy yenu charette bi koy yenu suñu booy charretier yu bëri da nga leen di fekk ci bërëbu jaayukaay sàngara ñu ñuy koy yóbbu ñoom pour ñoom seen yoon nekku ci yow daal yore nga charette yóbbul ñu ay keesu boisson rax ci ay keesu sàngara dafa xaraam prix boo ci fayu ku daganul yow borom charette yow borom oto amoo droit nga yóbbu ko yéen ñi nekk Europe di liggéey ci ay camion les camionnistes xam leen ni loolu dafa xaraam waa ji ne ma oustaz ñun kat duñ ci xam dara dañuy ñëw rek defar oto ba mu fees ne la yóbbul nga yóbbu ane ah taxul mu dagande jullit amul droit yenu sàngara di ko yóbbu wala mu yen ko matériel am ñu di ko yóbbu kënu koy indil tamit amul droit mu jëfandikoo kon sàngara fukki mbir yi da cee aju jullit war na koo moytu yéen ñiy liggéey ci wàllu togg ak ñiy fees nekk ci bërëb yi ñuy feesee ne ñu moytu di fees mbaam xuux donte mbaam xuux sax kenn du ko fees waaye jullit mën na cee liggéey liggéey boobu na xam ne du liggéey bu dagan togg baag lépp ci yem daganul moo xam jullit nga koy jox wala yéefar bokk na ci fàgguwaay yu araam yi te mooy fukkeel bi tatfiful makaayil wal mawazin mooy ni jaaykat yi def poids bi xaw ma balance bi nga teg ci acier pour contrer kay jaay bu waree am kilo mu manque ñi nekk seeraat di jaay ndawal koŋ bi ñuy koŋ balance bi koŋ balance daganut parce que ñoo gën a xam ni am na balance yoo boo ko nee tell koŋ su demee aller buy ñëwaat retour day manqué bu dee cinquante la woon boo ko koŋee bu demee buy ñëwaat 47 lay toll ñoom xam nañ li may wax dugg naa fa laaj ko ba ñu leeral ma ko léeg-léeg nga gis jaaykat boo xam ne bu lay tegal day teg ba ci àgg jubbanti jubbanti tegaat dóor ko fekk am na sëkkër yu ci nekk naxu leen nit ñi seen bopp ngeen di ndax borom bi nee na wazinu bil qistaasil mustaqim bokk na ci ñi yenn jaaykat yi def jaay mango orange wala lu mel noonu jël bool bi dóor ko ba mu dugg ci biir tegal nit ñi bagage yi ci kaw ñu foog ni marchandise bu mat la borom bi ne waylun lil mutaffifin الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم borom bi taala wa tabaarak nee na xuru mbugal ñeel na ñi nga xamante ne dañuy tatfis mooy dañuy mërmaral ñu ne ko ñu mooy ñan yàlla mu ne mooy ñi nga xamante ne bu ñu peeseloo pour jënd day mat bu ñu waree jaay mu manqué wa ida kaaluuhum aw wazanuhum yuxsiruun yàlla nee na yow jaaykat bi koy def ak jëndkat biy jënd te pour pare jaayaat jigéen bi koy def góor bi ko def yàlla nee na alaa yazunnu ulaayika waaw xanaa da ngeen a yaakaarul ni annahum mabuusuun da ngeen a foog ni da ngay nekk ci àdduna di jaay di lekk rek xanaa xamoo ne bis dana ñëw da nga dekki borom bi ne ne alaa yazunnu ulaayika annahum mabuusuuna da ngeen dekki li yawmin azim lu waay doon def dana leer bokk yi bokk na ci onzième bi mooy te métier mu xaraam la te bëri lool mooy aklu ujuril ummaal lekk xaalisu ñi lay liggéeyal créer sa benn société anonyme wala créer sa benn mbir jël ci ay nit ay baadoolo moo xam entrepreneuriat la ñuy liggéey fay ko jot nga war leen a fay fayoo leen te entreprise yu bari loolu da cee am baadoolee nekk fa di liggéey dañuy war a fayiku ba la 15 du ñu leen fay téye seen alal lor leen ku wax ñu dàq la nga dem kaas uti avocat ñu jënd avocat ba parce que bu dee xaalis nga pour pour jot sa àq ñoo la ko ëpp la société yu bëri dañuy am ak avocat yi ay deal bépp avocat bu koy def yaa ngi def lu xaram bépp directeur société bu yore société di lekk xaalisu liggéeykat yi société boobu dafay daanu ñi ngeen jël ñuy liggéey ay baadoolo lañ dañoo yore jabar yore ay doom ay na rahmata min qulubikum ana yërmale ci seeni xol nan ngay liggéeyloo ay nit ñu war a fay ko doo leen fay liggéey bu metti ay maçon ay liggéey yu diis ay yenu di xaar war a fayiku du ñu leen fay akaltum amwaala man lahu zawja yaa ngi lekk alalu koo xam ne dafa am jabar jabar mu ngi am bëgg-bëgg muta am doom amaan na sax doomam dafa feebar am na koo lekk alalam papaam ma nga ca dëkku àll ya ñaata parce que takkoo nga ak état takkoo nga ak borom doole loolu dafa xaram yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadiisu abi hurayra nee na yàlla taala wa tabarak nee na salaasatun ana xasmuhum yowma alqiyaama yàlla nee na ñetti ñii yàlla moo ko wax nee na ñetti ñii am naa ak ñoom tribunal yowma alqiyaama ndaw tribunal bu rëy yàlla moo plainte de ñoom plaintuñ yàlla nee na plainte na ñetti ñii salaasatun ana xasmuhum yowma alqiyaama bu ñu dekkee ñooñu yàlla da leen di taxawal def ak ñoom tribunal mbokk yi ñu ne kan ak kan mu ne ku laaj ci sama tur wor nga laaj ci sama tur ñu jox la ci sama tur ba pare nga lekk laaj ngir yàlla dimbala leen miskin bi ngir yàlla laajal ku feebar laajal ku nàngam laaj ngir yàlla ba ñu jox la ngir yàlla nga def ko sa kër bàyyi ka tax ñu koy laaj yàlla nee na dinaa layoog yow parce que ci sama tur nga laaj ñu ne ko ak kan mu ne ak ku jaay góor lekk njëgam jaay góor lekk njëgam nit kaa ngi toog xamul ci li mu nekk mais yaa ngi dóor ay marché ci kawam te moom xamul marché yi ngay dóor ci kawam di lekk plus que moom li mu war a lekk lekk te xamu ci dara loolu mooy jaay góor lekk njëgam wala ëpp nit doole jaay ko doole jaay ko keneen nee na ñetteel bi wa rajulun istaajara ajiran fastawfa minhu walam yutihi ajra nee na nga jël nit mu lay liggéeyal weer dee mu war a fayiku nga bañ koo fay nga bañ koo jox lor ko yàlla nee na yowmal qiyaam danaa xuloog yow bokk na ci fukkeel bi ak ñaar te moom la ñuy mujjee mooy surfacturation surfacturation jullit moytu ko bu liggéey ci dara moo xam maçon nga moo xam mécanicien nga moo xam ci société nga nekk di surfacturer surfacturer mooy yokk prix da nga war a jënd tonne ciment tonne ciment bi mi ngi war a jar soixante mille nga dem bind soixante dix mille ñëw ci magasin bi waxtaan ak borom quincaillerie bi ne ko defal ma facture soixante dix mille ma jox la ci deux mille francs walla borom liggéey bi ngeen facturer ko soixante dix mille te prix bi soixante mille lay jar. kooku explication boobu rek doy na ñu bari xam nañ ñi may wax ci ouvrier yi du jeex ci liggéeykatu service yi du jeex ñi nekk ci bopp service yi du jeex surfacturation ci état bi nag da cee bëri lool da nga ci gis koo xamante ni benn projet nit ki surfacturé ci loo xam ne ay millions et des millions muy surfacturation yokk prix dafa xaram bépp borom bitig buñ ko def loo bañal borom quincaillerie bu ñu ko def loo bañal yow sa quincaillerie ak sa bitig yaa ngi jaay mais kii ñëw jënd surfacturé defalul la dara daf laa toroxal man li may jaay lii laa jaay nga ni ma bindal ma prix sàngam du ma ko def du ma ko def xam nga dama ci gis histoire bu mu indi histoire mooy booy biy jaay ci quincaillerie bi waa ji da koo nax ci mu defar ko benn nu ñu koy waxee tey facture boo xam dañ ko surfacturé booy bi bind ko bi mu ko bindee ba pare dafa fàtte ni xam nga reçu bi day am retour retouru reçu bi nag ci la patron booy bu xool bi ñu calculer moo am arrière effectivement day am arrière bu fekkee saaku ciment soixante mille lay jar nga bindal kee soixante dix mille léegi arrière reçu bi sa patron bi lay jaayloo ci kenkayer bu ñëwee liir ko lu muy gis du soixante dix mille bu xoolee décompte nga décompte léegi ngeen ko noonu soixante mille laa ko jaayee mu ne la dangay fen mooy yow am nga bàkkaar moom am na bàkkaar jaaykat bi diiñal bu ko nangu ku la ko def loo boo duggee biir Sandaga dugg ci marché yi du jeex gis ñoo xam ne ay dil la ñuy def ak jaaykat yi loolu na ko jaaykat bi moytu mbokk yi nañu moytu lu mel noonu beneen bi bokk na ci nañu moytu di lekk alal bu état moom nañ ko moytu borom bitig bi jaay ngay liggéey service d'hygiène ñëw ñu tegal la ñetti boisson nga waroon a yóbbu trente mille francs service d'hygiène borom bitig bi jox la vingt mille teg ci ñetti boisson nga naan ko yóbbu vingt mille sa kër loolu dafa xaraam dama tudd benn tur rek waxuma pour ñëpp ñi koy def ñëpp que ça soit man la wala yow la wala leneen alal bu état moom amoo droit nga lekk ko dañ lay fay weer li ñu lay fay weer boo ñëwee defaral nit ki mu fay nga defal ko russi maintenant nag di nga gis nit ñoo xam bu ñëwee ngeen leen defal mu russi ñu jaay la tàng xol mooy njub moo jeex ci kanamu jullit ñi yàlla na yàlla dimbalañu nañu fexe moytu di yóbbu alal bu lewul ci sunu kër yi nañu moytu di lekkaloo alal bu lewul sunu jabar yi nañu moytu di ko lekkaloo suñu doom yi loolu dafa xaram yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na laa yarbu laxmu nabata min suxt illa kaanat naaru awlaa bi nee na bépp yaram boo xamante ni dafa màgg ci lekk ger safara moo ci yey boroom safara jun laa yadxulul jannata laxmu nabata min suxt du dugg àjjana yàpp boo xamante ne dafa saxee ci ger kon jullit ñi fitna yi ñu dal yépp xuloo bi ñàkk juboo bi noonu yàlla yi duma bi ñuy duma yépp du ñu ñun la waxan bi ñu dal ñun la parce que léegi ñun ñooy lekk lu xaram ñun ñooy naxante suñu biir ñun ñooy warante suñu biir kenn ku nekk loo mën teg sa morom ci du bon nga teg ko ko kon noonu yàlla bi day toog ci suñu kaw lan moo tax parce que ñun ñoo bàyyi li yàlla santaane moo tax ata ibnu abi rabaax bi benn waaye ñëwee ne ko ata ñaanal ñu waaye léegi marchandise yëpp a yokku mu ne wàccee leen ko istigfaar marchandise yi dafa yokk ñu naa mu ne ko yéen ñëpp tuub leen bu ngeen tuubee rek mu wàññiku mooy nañu tuub tuub nag nekkul astagfirullah rek bu fekkee da ngaa tuub tey def lu xaraam tuubagoo kon li ñuy dal ñun ñoo ko teg suñu bopp wa ma asaabakum min musiba fa bi ma kasabat aydikum allahuma ahdina fi man hadayt wa aafina fi man aafayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma aatayt وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وعليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
غرباء